tay ba la vision 2050. mille cinquante liñu Dakar, gis nga moins de 0,05% du territoire national mom mo concentré 46% de la richesse nationale Dakar je mi représenté moins de 0,05% du territoire national moi, concentré 46% de la richesse nationale si vous li nga centre pays bi te regroupé 11 régions depuis Saint-Louis Louga Diourbel Kaolack Kaffrine Fatik, etc. Nous avons ngay depuis le nord jusqu'en bas du sud ba onze régions yi ñoom ñëpp elles représentent 44,5% de la richesse nationale les 11 régions yoyu représentent minimum minimum 80% du territoire national l'est du pays nga xam ñaari région la Kédougou ak Kunda ñoom ñu de la richesse nationale Comme lui, c'est un déséquilibre criard entre les différentes

sénégalais nous xam Moi, tax ma profito lever aussi Ben équivoque parce que Ben comportement Ben nit ñun waruñu tomber ci erreuru stigmatiser tout un quartier wala toute une commune ndax Baobab bo fa démé ci élection présidentielle bi ñoo fa gagné kon Baobab ñoo fa ëppale kenen ku ñun le problème c'est pas Baobab c'est pas Dakar le problème c'est un individu bu am ay problème bo xamné à la base djogé ndax kenn ku ne nañ la yaree sa kër bo génné ci biti non ngay comporté woo kon du problème mu Baobab du problème Dakar. Dakar. Dakar, bi élection bi passé ño fi gagné largement té élection bi ñu jëm ce sera plus profond encore inshallah kon kuy woté borom Dakar, té mëno gagné dara ci dakarou moy mag buy nax bopam et buñu tomber tombe dans ce piège mais déséquilibre entre les différentes zones du Sénégal motax lu ci ñun par man on s'est retrouvé à Dakar alors que buñu nous le minimum fa peut-être ñu ñu Pikine Rufisque Dakar ils ne seraient pas là, ils seraient chez eux. Moi, il faut rectifier et corriger ce déséquilibre territorial dans la vision 2050 gannaaw bu développer développer l'équilibre sera 46 pour Dakar 29 pour nous pôle centre 44 pour 51 waye bo demee ci pôle est bi mom mo wara ñew à 20% li boko défé suñu né nak dañuy wañi Dakar dañu bëgg nit ñi comprendre comme comme Sénégal de manière générale day yokku de manière substantielle dañ koy yokku mais ñu redistribuer ko ba yenen pôles yi yenen région yi jot ci sen wall lool moy permettre ñenn ñi nga xamné tay ñi ngi ci Dakar dans des conditions difficiles juróomi minute, bien de chambre Xey nek ci mbedd mi di jaayant pour am lu ñu nous ñooñu su dee yaa ngi jóge woon Kaffrine wala Ziguinchor wala nga jóge Kaolack wala nga jóge fu munti doon bu def nañ a def pôle bi pôle expliqué lañ def à partir du potentiel qu'il y a dans ce pôle ils préféreront repartir fa dëkk am fa seen loolu mooy permettre Dakar noyyi Dakar aéré balaa nga naan maa ngi sonal di de nouveaux pôles urbains da à l'intérieur de Cap-Vert nga créer les conditions non seulement de l'exode rural mais que les populations repartent vers leur ruralité mën a am li ñuy am ci mbay mi am ko ci càmm gi am ko ci industrie tabax am ko ci développé foofu loolu suñu vision économique mais le pôle de Dakar boko de mom moom li tax ñu def ko pôle mom dong en terme de superficie so coordonnée à ak yeneen pôle yi da nga pôle Dakar nekk pôle mais yàlla dafa def capitale, tubaab bi jele capital andiko Dakar ñu am une économie bo xam dañ ko centraliser à Dakar mu créer ben macrocéphalie lepp nek biir Dakarou lolo tax ñu pôle ñu né pôle bobu configuration pôle bi ci le pôle de dakar en termes de population fait 4 millions 100 000 habitants à l'horizon 2050 warna nek 6 millions 100 000 habitants donc une progression substantielle le pôle de dakar le PIB par habitant mon mot actuellement ci Sénégal parce que c'est un million huit mille francs par habitant lolo tax nak ñëpp ci biti parce que yenen pôle ay quatre cent mille francs nga fay fekk ñi ci a six cent mille francs y'a que le pôle est muy ak un million rond mais un million bobu un million sur le papier parce que or bi am ba Sénégal comme théoriquement c'est 1 million, mais population Tambacounda, population Kédougou, Boalen donne 7, nous avons gagné dol qui Sénégal, nous avons gagné nous avons gagné Orbi, nous avons gagné Nini exploité Fofu. Marble bi mi ngi fofu ñukoy exploiter ak yenen ñune à l'horizon 2050 Paul bi dafa wara atteindre 10 millions par habitant en termes de PIB rapporté à l'habitant nous avons lan taux d'emploi bi ñi fi nekk en âge de travail Le pôle bi actuellement à 29%. c'est le taux le plus élevé au Sénégal mais à l'horizon c'est encore très faible moo tax à l'horizon 2050, on veut l'amener à 40%. mais loolu naka lañ koy defee lan mooy les grands projets 2050 du pôle ma commencé ko par li nga xamné moy la culture ndax ñu bëri dañuy laaj lan moy place culture ci projet bi Senghor mo doon wax la culture est au début et à la fin du développement wax na culture dafa am solo en dehors des aspects identitaires fo dem que ragné les peuples entre eux nous naka lañuy solo naka sommes ñuy lan moy sen art culinaire tay nee nañu ceebu jën def nañ ko patrimoine universel mais ñu identifier ko au Sénégal naka lañuy ñuy naka lañuy ñuy lolu moy le premier identifiant d'un peuple te ci bir peuple bogis, gis day am ay spécificité ndax nañuy ñuy en Casamance boko ak ni ñuy feccee fouta boo Fouta riti yi lañ fay def bo demee Casamance bëgërëb lañ fay def donc culture dafa am solo ci pop ba tax ñun dañoo fonk culture bi ñu toogee dégg ngeen yaa une vingtaine de jours wala un mois li nga xam ne mooy la copie privée artiste yi yàgg koo jooy te amuñu ko yaa à peu près vingt cinq jours jàllale lañu en conseil des ministres le décret bi nga depuis des années ou des décennies artistes yaa ngi doon daw ci gannaaw lolu dégg ngeen ñu ne Pastef fay na les droits d'auteur li muy utiliser ci campagne bi ci ay son ñun rek pour le moment la déggagum ci ay coalition wala ay parti yu ko fay kon ñun culture xam nañu lan moy valeur te bëgg nañu nitu culture di dundee culture motax le pôle je vais commencer par le hub culturel Dakar est déjà une attraction culturelle Nous bëgg mu donne un grand hub culturel ba commencer ko ci la Dakar nous donne la capitale culturelle de l'Afrique Aujourd'hui, gis depuis quelques jours lancé nañu biennale bi biennale bi yàgg na fi biennale des arts des lettres etc., mais nous bëgg une dimension dix fois plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui Nous donne une source de rayonnement de notre pays à travers le monde entier mais nous bëgg aussi ben écosystème dynamique pour amener les plus industries culturelles à travers toute l'Afrique Nous avons centralisation ici au Sénégal ou à défaut nous donne un des foyers forts de la culture Nous ci cinéma bi ci la production de série nous avons nañ ni sénégalais yi am capacité ci production ay série ba légui série yi ñu koy trans ñu koy tra transcrire ci anglais ci français chaîne internationale ça, sax diko jallalé mi ngi jaar aussi ci les arts visuels di jaar aussi ci lepp lo xamné dafa jëm ci production musicale lolu moy premier élément bi nga xamné bëgg nañu Dakar ni ko Senghor bëggee woon ba tax mu organiser woon la festival des arts nègres noonu lañu bëggee dundalaat art ak culture ak léeg lu jëm ci noonu ba Sénégal doon ci benn royukaay ci Afrique mu war a yomb nag parce que Sénégal gis nga art dafay ànd ak stabilité ak paix foo xam ne ay balang fay tàkk nit ñaa ngi fay dóor jaasi nit ñi dinañ tal leneen lu dul aar lu dul fecc lu dul Euh, euh, euh, peinture ou ak yenen ak yenen mais Sénégal amna stabilité démocratique Nous, mu metti métti on parvient à faire des alternances mu jaar par les urnes Quel musul dégg coup d'état au Sénégal kon tay li ñenen ñak té ñu ñaanal leen ñu am ko ndax ñun panafricain lañu jamm lañu bëgg ci continent bi mais en attendant lol di am nous avons utilisé li nga xamné pour capter tout ça on veut que Dakar soit un hub du savoir de la science de la technologie de la production scientifique Lolo, un petit avantage ngi ay Congo ba Cameroun euh yeneen Sénégal parce que am institut de formation yo xamné qualité bi mu am pour le moment eggagul qualité bi ñu bëgg comme les pays développés mais rawna lu bëri ci pays yi nga xamné ñi nga xamné ño langue bi ñuy gëna utiliser muy la langue française ñu bëgg donc ce hub du savoir par la promotion d'écoles de renommée ñu gën ko travailler bëgg nañu mu doon un hub des métiers du savoir également par le conseil et l'ingénierie

avantage pour cela il faut que tous ces métiers de conseil d'ingénierie les métiers judiciaires les métiers de la finance de la comptabilité les métiers qui tournent autour des hydrocarbures ndax am pétrole am gaz ak le lu jëm mini on doit produire des spécialistes dans tous ces métiers les meilleurs experts de l'Afrique mu jëriñ d'abord suñu réew mais ñu mun exporter comme savoir-faire parce que gis ngeen le savoir immatériel mooy xam-xam boo xam nous sommes dans cette économie là yéen a ngi dégg ñu l'économie du numérique tey boo jëlee li ñuy les majors les majors en matière d'hydrocarbures da dégg ñu BP da ngeen dégg Total da ngeen dégg Shell ainsi de suite gis ngeen ñooñu ñëpp boo leen dajale dajale chiffre d'affaires mennum Google molen leen chiffre d'affaires xam-xamu ëllëg mooy xam-xam bi nga wala économie ëllëg mooy économie bi nga ne ci xam-xam lay ci xel lay les GAFAM Google Facebook Amazon etc., yooyu c'est le savoir immatériel du ñëw jël ay pelle di gas donte loolu am na njëriñ ci réew mi du pétrole du mine waaye loolu yëpp ci xel la jóge ay bouton ngay toog di cliquer mu tout de suite ay milliards Chine mii rattrapé retardam ba tey c'est le seul pays boo xam maîtriser na la technologie du 5G tubaab bi di bëgg a rey seen loolu la anglais di wax leapfrogging mooy da ngay ñëw amoon retard di liggéey di ko rattraper ba ñëw ci benn secteur nga commencé di dépasser ñi nga xam ne ñoo téye woon réew mi àdduna bi loolu la bëgg ci Sénégal nañu gëm suñu bopp dañu bëgg a former dans ces métiers extrêmement important de la matière grise te loolu mi ngi jaar ci Sénégal am nañu déjà ay doomu Sénégal yoo xam ne les nga États-Unis les Chine les nga Europe ci secteur névralgique yooyu ñoom des ay ay ay référence prix on va organiser le retour au bercail de ces matières grises ñu ñëw fii Sénégal nous avons jeunes yi encadré ba ñu am les pionniers en Afrique dans un premier temps mais dans les décennies à venir n'est que parmi les premiers qui secteur yooyu Dakar moi, wara nek le centre le foyer de cette économie immatérielle Dakar wara nek un hub touristique nek nako ba nopi mais dañ ko bëgg renforcer peut-être amna ay zones du Sénégal qui ont une capacité plus importante en matière touristique mais Dakar a été la capitale de l'AEF goré mi à côté nous reconnaissons a promotion parce que c'est l'histoire du peuple noir des périodes les plus délicates et les plus difficiles de ce peuple noir Moi, le devoir mémoriel quand Ousmane Sonko parle de devoir mémoriel parce que dafa contre France ou la il faut que suñuy doom xam ce qui s'est passé parce qu'un peuple qui oublie son histoire est un peuple qui tôt ou tard va subir à nouveau la domination li tax ma ne tey fii biir Ndakaar waratuñu am tali bu du général de Gaulle wala maréchal Foch wala xawma li wala di, wala lii Lol dafa war jeex Sénégal devoir mémoriel pourquoi on a insisté pour que Thiaroye 44 nous célébrer ko cette année comme on l'a jamais célébré pour que l'histoire de la colonisation une domination sauvage avec des exécutions

on va restituer à nos ancêtres leur dignité leur fierté parce que nous ëppoon nañ leen doole waaye nitu fulla la ñu nitu jom la ñu woon te xeex nañu li et donc il faut que ce pôle touristique et ce devoir mémoriel boo demee Chine xale bu am 8 ans en Chine boko ko ne lan moy sa histoire da commencer 8 millénaires avant ne la ñun ba tabax muraille de Chine les Européens ne connaissaient pas encore la bougie moo tax ñoom ñu gëm ni dañu war a waat le monde soo gisee Cheikh Anta Diop ne ñu suñu histoire commencé avec la colonisation commencé wul avec avec euh, la période médiévale mais ça commence avec la période antique avec l'Égypte antique bi ñu bëgg ni ay tubaab la ñu woon wala ay naar fekk ay nit yu ñuul tant qu'on a cette traçabilité on continuera à être des comme le sont la majorité encore beaucoup d'intellectuels complexes vis-à-vis du tubaab ta am vis-à-vis de tous les autres et ça on doit tout faire pour que nous ayons une mentalité sénégalaise Voilà le hub numérique avec le parc technologique numérique le ministre Alioune Sal, qui était là avec nous mu géré qui doit être le plus grand parc technologique d'Afrique vous ñu ngi koy liggéey bu soobee yàlla fii à Diamniadio léegi mu yegg waaye yemuñu ci loolu Moi, Dakar également il faut continuer non seulement un pôle industriel mais un pôle agro-industriel pour moi, il faut que Dakar garde une partie de sa ruralité Si nous ko tout l'espace de Dakar nous avons ko immeuble on aura privé Dakar d'un potentiel économique important donc toute la zone des comment c'est ko fait technopole Gorom il faut que ça garde sa ruralité pour que nous connaissions des fois des def des fois des def pisciculture di fa def il faut def loo xam alimenter le secteur industriel ici à Dakar c'est extrêmement important la spéculation foncière ak ñi des dem ñi ñu dem daggal leen suufu Dakaaru gi wax naa ko tey Sangalkam nee nañu dañuy def mais des pôles urbains, c'est pour créer une capacité pour désengorger Dakar mais pôle urbain urbains, nous avons bi ñu muy dagg xol ba dagg xol pa jam jaajo boo ci laaj ñu ne leen ñi mooy la liste des attributaires président de la république cinquante hectares ministre sangam vingt cinq hectares ministre sangam quinze hectares gouverneur tant hectares loolu mooy pôle urbain moo tax lépp nag annulé nañu lépp récupéré nañ ko parce que duñu nangu alalu réew mi ñu koy seddoo dans ces conditions là kon Dakar a une grande capacité Limna ci lu beuri. munoon naa kon di ci wax ba fajar mais liñu bëgg xam rek moy amana liñu wara def Dakar def ko à l'intérieur du pays buñ ko défé amna ño xamné tay ngi ils vont faire mouvement vers l'intérieur du pays parce que la bëgg def Matam avec le phosphate li nga bëgg def pôle centre avec l'agriculture li bëgg def pôle est avec pôle sud-est du moins avec l'or et Yéneni. yi ñu pôle centre avec ëpp yi ñu bëgg hydrocarbures les populations vont se déplacer Nous gën faire de a am une capitale qui répond aux normes de toutes les capitales mais pas une capitale boo xam ne ñetti oto bu ci dawee embouteillage am lii mooy programme pour Dakar am avons yeneen yoo xam ne bëgguma développer parce que on sera là jusqu'à 3 heures du matin mais deuxième point que ma bëggoon aborder ak vous, jeunesse du Sénégal particulièrement deuxième point que ma bëgg aborder ak vous, c'est li jëm ci nationalisme dafa am idéologie Nous, ñuy tuddee nationalisme réew buñ ko mësa développer ba sori lamay may ci réew momu moy ëpp limi muy ci réew momu nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des patriotes. Khamgen, ngeen moy difference différence patriotisme ak nationalisme le patriotisme n'est pas exclusif patriotisme boddiwul kenn patriotisme newul diw dama lay soril patriotisme dafa ne sama bopp la gënal tekkiwul ni dama laa bañ ñaar yooyu bokul. réewu Sénégal jeune yi lay waxal réewu Sénégal réew bu ubbeeku la réewu la réewu tolérance la waaye du réewu ostracisme du réewu boo xam ne da ngay joxoñ l'autre indexé ko ne moom la source de tous tes problèmes te tegoo ko ci xam-xam ma wax leen lu gàtt ci ñi wax naan suñu problème guinéen yi la waaye suñu problème libanais yi la bi ñu ñun kaso sama première conférence de presse dama leen ne teg leen wax yooyu ci suuf booba jamono ñi ngi wax Amadou Ba du sénégalais ab guinéen la man leen Amadou Ba sénégalais la juddoo fi yaroo fi jàngee fi liggéeyee fi ters fi toutes les responsabilités sénégalais bu kàccoor la nag waaye moo tax affaire yooyu nañ ko bàyyi ñu di wax loolu su ngeen leen ne woon ñaata étranger moo ne Sénégal man dinaa leen jox chiffre waaye dama waroon bàyyi rek bañ a jox chiffre fu ngeen dajeeg ñoom nee leen ñaata sénégalais ñaata étranger ñoo ne Sénégal duñ leen mën a wax ñaata étranger moo ne Sénégal ma jox leen des chiffres concrets nga xam ne recensement ANS bi ANSD bii ñu def bu mujjé bi mo joxé chiffre yoyu bu ma ci daané di ngeen mëna xam ndax sen problème mi ngi joggé ci ñooñu wala dit population sénégal dernier recensement bi 18 millions 126 000 habitants 18 millions 126 000 habitants étrangers bo len dajalé ñom ñep ils font 207 791 soit 1,1% de la population sénégalaise Li, mooy statistique xam nga suñ len né ñi mat nañu 3 millions won nañu population guinéenne bi mat nañu 3 millions te ñom ñep Amadou Ba lañuy votel kay 3 millions de Guinéens buñu ñu Amadou Ba Bassirou Diomaye Fay du dégg wiw yéen ñi quartier 3 millions sur 18 millions xam ngeen lan la c'est un sixième ça veut dire juróom benn kër yo gis benn bi étranger la wara don est-ce que fii géejawaay juróom benn kër yu benn bi étranger moko mom c'est-à-dire nañu waxante deug te di wax lu yenu mana est-ce que Sénégal faut tourner peut-être ñu bëri ndakaaru la yem ndakaaru am quelques étrangers demal Touba Mbacké demal Kaolack demal Guinguinéo demal Fouta di nga dox lu yag yag yag do gis ben étranger kon ku len gëmloo ni étranger ay milliards lañu fi Sénégal dañuy wax lu ko neex ñun ñi di sénégalais ñun ñi di sénégalais ay kat lañu parce que dañuy utiliser ay arguments yo xamné mën na jural sénégalais yi nekk bitim rew ay problème nañu def attention de est-ce que xam ngeen ñaata sénégalais ñoo ne bitim rew

kon nañu def attention bo ci dolé nak ñun panafricanisme lañu woté kon amna lo xamné ne buñ ci buñ ci soré ba sori yene ngi dégg France ñu naan extrême droite buñu xeyé dal ci africain wala étranger ne suñu maral yëpp ci ñi la joggé suñu mbokk diko dund mu metti lol ñu xamni ni ñenn ci ñom buñu gagné won bo moytu dañu leni lem ak seeni bagage kon ñun bu ñu commettre les mêmes erreurs lenn moom dina am fii ci réew mi mooy dinañu contrôler kan mooy dugg ci réew mi ak kan moo dëgg génn ci réew mi loolu dinañ ko contrôler ngeen déglu mu baax rek man li ma yàgg wax mooy on doit appliquer la réciprocité man rew bo xamne ne ma fay dem dang may laaj visa bala nga dugg Senegal da nga wara am visa man lo la gem te duma ko lam lamé mo xam France nga tuddu mo xam États-Unis mo xam budé bu may dem sa dëkk dina dem ra ambassade suba ngon nga laaj ma khalis léeg nga delloo ma ne ma joxuma la te te khalis bi do ma ko kon yow boy ñew sama rew da nga wara fay visa loolu mo yoon muy ben ñaaral bi étranger yi nga xamné ñi ngi biir réew mi même ñi nga xamné c'est dans le cadre de la CDAO parce que nous avons ni d'espace bokk espace bu tuddu nous mu am liberté d'aller et de venir au sein de la CDAO waaye war nañu mëna am carte pour identifier képp kuy étranger Pour ñu xam ni étranger la ci biir réew mi loolu lu ñuy liggéey Assemblée nationale ñetteel bi muy lu am solo mooy état civil bi man nekkoon naa maire jàpp naa ay nit ci état civil ñuy def lu dul noonu ma ne ñii dama leen di yóbbu tribunal mais état civil bi problème yi ñu ciy wax jeex na parce que am na programme boo xam ne ñi ngi ci dernière phase bi def nañ ci 19 milliards pour la numérisation de tout l'état civil ba nga xamné ne dootul doon ben agent buy tok fi di génne ay papier mais lepp dañ koy programmer sur ordinateur ba nga xamné ne kenn mënatul jaay kayit kenn loolu nañ ko liggéey mais bu loolu wesso mais bu loolu wesso bu len kenn monter contre une quelconque communauté notre problème ne vient pas de telle communauté ou telle autre communauté communauté bu fi nek ñenn ñi yag nañ fi

nous sommes un peuple civilisé un peuple ouvert sur le monde un peuple responsable un peuple voyageur et quand tu voyages ailleurs tu nga war a accepter ñeneen ñëw fii ñetteel bi nga xamné nak mom la bëgg je toujours ci li waxtaan féliciter l'équipe de campagne féliciter l'équipe de campagne. Commencez par monsieur le directeur de campagne, Fadilou Keita. Avec son adjointe, Jamila Diallo. Féliciter Niger et sécurité Je dama bëgg ngeen tàccul vous bu baax ñi sécurité Je jàmbaar lañu. féliciter également. ñi nga xam ne ñi ngi ci liggéey bi te kenn du leen gis d'habitude mooy ñi yor communication bi yépp équipe digitale bi ak ñeneen ak ñeneen félicité ñi nga xam ne ñoo yor machine électorale bi te kenn xamu leen muy waa Senop ma bëgg ngeen tàccu leen bu baax waaye ñi nga xam ne nag ñu leen di wooye les patriotes riders ñi yor seen moto dama bëgg ñoom it ngeen tàccul ma leen bu baax mais leader yi ñu andal yépp nga ne topp Sénégal yépp yor micro bi di neexal campagne bi di agrémenter discours yi maa ngi leen féliciter di encourager ñoom it. di wax di sénégalais bi ni que rendez-vous bi rendez-vous démocratie la. ça doit être une fête li ngeen ko fête la fête fête bon nak mom lañu bëgg continuer dimanche ñu gagné avec une majorité écrasante en valeur relative Nous bëgg victoire dépasser 60 en valeur absolue bëgg nañu am minimum 150 150 députés à l'Assemblée nationale dama wax ni jaar nañu Sénégal partout li sénégalais yi wax mooy am nañu ci ñun qualité googu nag duñu ko démocratie violence amu ci place ku programme wolu sa xam utiliser violence wax Diouf ñun mais vouloir la paix ne doit pas conduire à une faiblesse coupable la paix lu ñuy la guerre malgré lui

système bobu moy classe politique binga, nga xamné ne faw ñu jëlé len fi mais système bobu moy une grande partie de la presse sénégalaise nga xamné bis bu né yeen gis ngeen sen liggéey ni mu démé waye ils nous trouveront ici mais système bobu moy une partie de la société civile nga xamné yakamti wuñu lu li parce que li moy sen traite en réalité la leen financé bitim réew